waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu waaw di wax na rek nag gis ngeen ñaari ndox yi ñaari ndox yi wuute la bii nii rëbina baa ngi nii si rëbina bi la xale mu ngi nii rëbina baa ngi nii di xale yéen gis ndox mi si rëbina bi la jugee gis ngeen ndox mi ni mel siwo bu weex ñu raxas ko ba mu set wecc gis ngeen ndox mi mi génne ndox mi ci kaw sàng bi la jugee bii nii siwo bu zone bi ndox mi ci kaw sàng bi la jugee mais imagine leen di ndoxam zinc bi ñaari yi lan mooy différence bi ñaari ndox yi ñaari ndox yi lan mooy différence bi bii moo jógee si robinet bi bii si kaw zinc bi la jugee fii ci Kaolack la amee nag waa seen Sen'Eau respecté leen nit ñi seen facture yaa ngi yokk rek te mun leen a fexe ba jox nit ñi ndox mu baax robinet yi day xëy ba jant bi so du ubbi wala bu ubbee ñaari waxtu tëjaat ñeenti waxtu wala juróomi waxtu ngeen indi facture nit ñi facture yu yu cher ba nga xam ne nit ñi mënuñ koo fay ba pare ngeen leen di jox ndox moo xam ne baaxul lii li sangu si sax wax waxuma laa di ko di ko naan xool leen lii Kaolack la Kaolack Medina Baye fii la lii mooy ndoxam robinet bi robinet Baye nii moo jugee ci robinet bi bii moo jugee si kaw zinc bi bi jugee si kaw zinc bi sax moo gën wala moo tene sax bi nga xam ne moo jugee si robinet bi lii Kaolack lay amee Medina Baye fii wax nañ leen nag démb ci kanam gouverneur Ousmane ñu naan yom ne nañ ko laboratoire dakar pour ñu xolal la mais respecté leen nit ñi communiqué leen ne revenu yi temps yi da ngeen seetlu na ndox mi gis ngeen nii xam nga li muy xañ moom kit mënu koo wone waaye li muy saf boo ko mosoon ndox mi dafa mel ni dañoo jël ndox mi rek xorom ko dimbale leen ñu dimbale leen ñu te respecté nit ñi yéen waa seen eau mu ngi nii fii la xewee medina baye